pour freiner li nga xamante ne moo di élan wu nemmeeku. tour bi confrontation bi lay dégg ñu bëri dañ foogoon ne Sénégal day qualifié. ñu ne bu ci li ñeen ji wax bu qualifié amaana Ousmane Sonko boo ko tegee loxo dara du xew. am na Sénégalais yu koy wax am na ñuy wax ne dañ ko natt ngir bloqué nemmeeku tour bi am na Sénégalais yu koy nga ci jàpp la moo ci sa man am na boo jàpp mais du lu ma wax. lu doo ko wax. ah déedéet. doo ko bokk ak Sénégalais yi ne sama gis-gis mais mais ni mu nekkee sa gis. baal ma jaaree ko pour man xam nga ku ne libre nga wax li nga xamante ne mooy. gis-gis non baal ma jaaree ko pour man. l' affaire Pape Alé euh, mm. ñu mun ko rattacher à l' affaire Adji Sarr démb sax. ñu bëree jooy nañ ñi quand même suñu naataango parce que nee nañu ah, bu fi nekkoon ba tey dinañ def ay révélation yu nga xamante ni di nga ci gën a am hmm. lu leer dama bëgg régie indiwaat photo boobu ngir li may annoncé ci Pabal dama bëgg régie indiwaat photo boobu voilà hmm. merci tée lañ ko fii waaw léegi hmm. euh, mu entamoon ak grève de la faim ni ki vendredi donc euh, dina ko suspendre parce que li mu bëggoon xaw na am parce que dinañ ko entendre ni ki aljuma bi euh, mu xawoon am tamit ay jafe ci wàllu wér-gu-yaramam ba dégg nañ soxnaam artu ñun presse muy demander à ce que ñu bàyyi ko. bu nit ñëw rendre ko visite parce que état de santé may ko mu apparaître ci kanamu nit ñi. Mm-hmm. soxna Penda photo bi. Mm-hmm. dafa am solo ci Pape Alé ak liñ koy jiiñ xam nga Pape Alé ay agent wu GIGN ñoo ko wër nii benn reportage bu mu defoon fête veille indépendance. Mm-hmm. Pape Alé yàlla rek a tax may wax. musu xantal ko. dañoo rombante benn yoon. gisuma man ah ci réew mi bu ko gën jox cër nos forces de défense et de sécurité. gisuma ci réew mi journaliste bu ko gën a bëgg valoriser nos forces de défense et de sécurité d'ailleurs looloo tax mu bëri ci xarit danga nga koy dégg mu di ko wax. Mm. des amis haut placés xëy na loolu tax ko indil problème jàpp nañ ne amaana am na luñ koy wax. dëgg la Pabal jàpp ma ne day yëkkati ngir yàq wala day yëkkati ngir te man dama jàpp ne day yëkkati maanaam li ñuy wax naa ki la bëgg moo lay wax na la sa doxin defaraat ko je pense que Pape Alé méritait autre chose que liñ ko def. oui. Mm-hmm. très sincèrement. du xola defaluma dara Sénégal dafa méttee wax xaritam la dafa daara la ma defal. da nga am sa gis yàlla ko wax. waaye defal ni réew mi taman ci réew mi laa dëkk. dëgg la plusieurs fois réew mi toll na ci impasse mais Pape Alé bokk ñu ko désamorcé. Mm-hmm. Pape Alé am na yoo xam ne amaana. diggante Sonko ak état bi Sonko doon na beneen posture mais Pape Alé yàgg sax moom Pape ñu bëri xamuñ ko. voilà léeg am nu mu doxalee loo xam bokk na ci ñu ko ko conseil ko defe defe ni loolu bokk na ci li apaisé marche bi fi naroon jur jéeyee mais Pape Alé bokk na ñu ko désamorcer du ennemi foog l'état xam ni ñun ñii di wax du ñu seeni ennemi mënuñ dëkk ci réew mi am carte d'identité sénégalais ndaay ak bàyyi dëkk fi mbokk dëkk fi am fi suñuy investissement am fi suñuy business di fi yëngu ñun yaakaar tëdd fi ñuy taal réew mi wala di wax lu xay taal. fi ñu toll ñun Sénégal bu euh, tàkkee ñu teg loxo ci réew mi. ku tourné ñu tëj comme ni ko Dame Mbodj waxee comme Lido ku génn ñu tëj. réew mi y a trop d'arrestations liées à la politique maanaam li ñuy bañ a dégg détenu politique maa ngi dégg benn ministre doon wax naan eh, au Sénégal y a pas mais au Sénégal les grilles sont remplies de détenus politiques ñii ñëpp ay détenus lañ ñoo xam ne li leen jàpp c'est lié à des faits politiques Ami Dia ay doomam Ousmane Diagne partage publication émoji yéen mën de baax na de ci bu la yàlla dénkee doole. en tout cas ñi ngi euh, am yaakaar bu rafet que ni vendredi dinañ ko entendre si ko que 31 euh, jours a ngi nii mu nekk en détention depuis 31 jours mu ngi ci mu ngi ci kaso bi la euh, faim waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi que ñu libéré ko suñu confrère la te nit ku baax la boo ko nga xam ne nit ku baax la nit ko bëgg journalisme la ku ci nekk tamit bu la gisee rek conseil da lay njëkk conseiller donc ñi ngi koy ñaan à que euh, ñu génne ko fu mu nekk. Euh, beneen actualité euh, Cheikh Ousmane bëgg naa am ci sa gis-gis mm. l' affaire mm. Amidia. Mm. tey ce matin boo toppee actualité bi gis nga ñi nga xamante ni moo di Moustapha dañoo déposé ab plainte contre Amidia parce que ñoom ba tey rafetluwuñu kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci seen leader du parti di Moustapha Sy mais également di seen sëriñ njiital Moustapha Chidini ñu jàpp ni Amidia kàddu yi mu yëkkati waru ko wax Amidia jàpp ni moom it la mu wax garaaw ndax elle n'a fait rappeler loolu moo waral mu bañ euh, excusé wu. Mm-hmm. mais bu ñu demee tey jii ba wàllu tarixa di ci rax. Mm-hmm. ça devient dangereux. dama lay laaj ku tudd sa sëriñ dana neexool dana di nga am loo neexool di nga am la naqari. ça dépend nee ma waaw rek ñu dem. non non non xam nga nag man xam nga sama jikko man dama toog télé dox lu ma neex lu ma gëm laay wax. waaw réew mi ah, waaw mais su fekkee sama sëriñ de politique nag. dinaa quand même dinaa mën a def la part de choses. waaw léegi. Mm. xam nga d'abord kon foog ñu leeral ne Serigne Moustapha Sy coordonné wul pur c'est la responsable morale du moom mooy toog bureau politique gu benn ay activité pur nekku ci au sein bu ci nekkoon au sein saa saa yu réunion bureau politique amee yeewee askan bi nga gis ko fa doo ko fa gis dëgg la wala dëgg mosoo ko gis benn meeting am na wala amul loolu bu tiyaawandu mooy bu pur doon def demul bureau politique coordonné activité activité yi te wane na ne du mu moo yoree di def ak dindi ndax xëccoo na fi ak ku nekkoon coordonnateur pure mooy Issa Sall xëccoo gu metti ban waa nitu APR moo ñëme xëccoo gu Macky Sall biir APR ku ko def suba ñu dàq la communiqué 18 heures ab Abdou Mbow ak ñooñu dàq nañ la gis nga Moussa Diakhaté dama la yàq rek ba mu fi xëccoo wi 18 heures communiqué bi génn signé Abdou Mbow ak diw diw am na wala kon moom coordonné wul pur ndax bu ko coordonné woon Issa du fa ne di xëccoog moom responsable moral la responsable moral ak coordonnateur dafa ute gis nga buñ tuddoon Cheikh Tidiane Youm kenn du wax buñ tuddoon euh, Serigne Kine Mbacké ah mais mi ngi coordonné à ah, l'interne Cheikh Soumaré xaaral buñ tuddoon mi ngi coordonné nga xam ne dafa mouvement kenn du ko wax buñ tuddoon Serigne Kine Mbacké euh, sëñ Baara nga xam ne dafa mouvement parti moom moom mooy président bi kenn du wax chaque jour nga dégg ko ko attaqué assemblée chaque jour nga dégg ko ko attaqué ci presse bi moom ak keneen ak keneen ko sant beneen sant di politique waaye kële di kii dafa politique dafa nekk seen responsable moral ak. dafay Cheikh xaaral ma ñëw non pour ma dagg. non mais Cheikh ma ñëw xaaral ma ñëw bu dee si politique lan lay def. politique de. lan lay def kon. xaaral rek parti bu mu moom lan la. xaaral rek waaw xaaral rek non maanaam boo déggee mën la politique waaw d' accord du maanaam actiful ca def yi dig laa la bëgg wax. comme Ousmane Sonko lam ne président wu Pastef nawle Ousmane Sonko du Serigne Moustapha Sy Cheikh Tidiane Youm la mooy toog ak ñoom. d'accord mais lu la wóor ni. Euh, ah, nekkul moom moo investir ay député non parce que dégg nañ ci député Massata bi taxaw wax ni sama xarit Adja Awa Diène bu pur ah. di député à l'Assemblée taxaw wax ni ah. dañ fi nekk ah. grâce à Serigne Moustapha Sy moo ñu fi teg grâce à Serigne Moustapha mooy moom moo leen tàggaat moo leen inspiré mais du moom moo tànn man mun na nekk tamit moom mun na nekk tamit moom moo tànn man xam naa ci lu leer ndax man xam naa ko ci nekk maire koo xam ne pur la bokk du Serigne Moustapha boo gañul sax fi ñu ko defee même bu ko bokkoon amu ci gis-gis tamit jëlewu ko xoolal sëñ Moustapha pur daf leen maanaam direction bi la leen teg fondement yi li ko créé baleen ñu dem. d'accord mais pour en revenir. léegi yow nga nekk ci loolu. Hmm. nekk assemblée attaqué sëriñu jàmbur nit ki naqarlu ko won la na li nga def neexu ko. Hmm. nga wane ni yaa tey. ñu levé séance bi président groupe parlementaire yi daja waxtaan na dana excuse wu excuse woo mais on passe. la laa ne mais nit te ni discours nga chargé waat wan ko na ko maa tey li ma waxu rëccu ma ci dara. cest à bi dafa ñeme te olof day wax ne ku ñeme dañ laa dee dafa jàppoon ni am na ku mel ni Farba Ngom à côté d'elle te y avait l'État à côté d'elle te sentiment bi ñu bëri ci bennoo jàpp mooy sentiment que ñoom lu luñ def du mujj fenn. est-ce que justifié na doo bi. xaaral ma ñëwut quand même ma dóor mu appuyé waat fa mu appuyé tubaab nag moo wax kii si frog si picc. man foogoon naa ni leneen doon na ci jublu damay sant yàlla foogoon naa ni comme la xewoon ci Moustapha Cissé Lo ci wàllum këram Touba man foogoon naa ni yëf fi doon na gën a dégénéré nañ sant yàlla mu sax diine am nañ dootu ne essai à saluer Sénégal fii li fi tradition koo fi tudd sëriñam mu jaay la bakkanam Cheikh Ahmed bi ngeen daan invité fii dem na Medina Baye tudd fa benn sëriñ ñu jàpp ko dóor ba muy laax di yàq gàddu yàpp ci pick-up ko kanam yi feeñ mu plainte mu jut fen Assane Diouf attaqué na fi koo xalaat ci réew mi président ak institution boo xalaat Serigne la tudd ñu dem këram dajji ko gàddu defeere ji am na wala amul li ma lay wax ay fee la Walfadjri toj nañ ko ndax tudd gi ñu tudd benn Serigne revue de presse mujjut fenn Sénégal tradition moo fi ne koo tudd Serigne mu jaay la bakkenam bul fooy du ñëpp du ñëpp ñooy def noonu. non loolu boo déggee ma la ma yow mbir bu nekk. maanaam bu nekk yëkkati na yëkkati na ko ci. mooy politique. voilà ci cadre politique la mais boo fekkee Ahmed Khalifa fekk ko ci doomi maam Khalifa boo ko tuddee une heure deux heures. taalibe maam Khalifa mais Amy Ndiaye ñibbi koy analyser suñ koy analyser. Cheikh ko mos mais d' abord d' abord ñibbi. xam nga bëri na d' accord waaye jour ko ci doomi sëriñ bi ci ngoon da dégg toog. d' accord Amy Ndiaye ñibbi euh, Cheikh Soumar. non Amy Ndiaye ñibbi la mu wax moo fa amuloon place. kaddu yu mu yëkkati sëñ bi sëñ mais kaddu yu mu yëkkati. te ba pare moom attaqué sëñ Moussa rek. waaw d' accord xaaral def na. waaw waaw laisse-moi finir ma ma question. Mhm. kaddu yu mu yëkkati moom Amy Ndiaye bi mhm. sëñ Moussa ma ko waxoon waaw wala déet. waaw. moo ko waxoon. waaw kon pourquoi ñu koy demandé mu présenter ses excuses. ok léegi xaaral ma elle n'a pas inventé. si dafa am lu mu ci teg. lan la ci teg. sëriñ bu melut ni nii ñu tëggee bu fi tëddee ne tama ñu tëggee la ñaari boor. waaw benn. waaw man sëriñ li ma ci xam. mooy mooy période bii muy wax nii. mooy da ànd ak ki fi yàlla teg bu fi jógee nga dem ànd ak keneen keneen ku fi nekk naan da yor say rawaan di falaka fool yi maanaam am yaay ñi bi elle a suñ koy firi lim de c'est caricaturé. mais xam nga mais xaaral rek xaaral rek d'accord dugg ci ay fee am yaa ñi wax def mun naa la indil fee yu bëri ci nit yu ko def. nii ñii bu ko defee jàpp na leen si mu mos nañ ko fi jàpp ci lan. offense en ministère de la culte tu te rappelles 31 décembre ba bi mu bi mu commenté discours bu ma dugg foofu c'est sensible. xam nga tey ji ñëpp d'accord nañu wàllu tarixa xam nga benn affaire de wàllu tarixa de sëriñ moom d'accord rôle numéro un d'accord xam nga boo ne tarixa sëriñ yi ñoom ñoo koy jiite kon benn la rek xam nga ku ne d'accord na ne tey jii ci réew suñu réew dafa am fu ñu teg suñu sëriñ yi ku ci nekk fa nga gëm mu nga xër ci lool parce que dégg sax ku mel ni Kouramaki pourtant mouvance bi la bokk. Mm. mais bu mu jëlee kàddu dafa ni moom ku wax xam ko ci famille Seydi Hadji Malick Sy donc buggul affaire sëriñ. ñu koy dugal ci langue ci ci langue politique bi non affaire bu mu amee ki saa si laata door bi. man seetaan naa Kouramaki mm. mu déploré kàddu Amy Ndiaye jàkkaarloo mu ni ko. Mm. man d' accord ma à suñu sëriñ yi ñu leen di wax fii te loolu. pourtant ñu bokk parti pourtant mënoon na ko ci bañ a fekk donc day wàññi mbirum sëriñ dafa nekk lu sensible lu nga xamante ni ak foo munti bokk mhm. bu la nit waxee lu neexul sa sëriñ rek ah, di ci jug ma ne man mii waa ko sëñ Fallou la ku ci wax la ci war ta wax mais est-ce que foofu a éviter cooloo yëpp tey jii euh, ba Moustaphidiine yi euh, di ci mhm. dugg euh, mhm. lu ni mel nii yëpp Cheikh Ousmane muy murit comme foo munti bokk est-ce que war ñu am benn retrait waa ci wàllu politique sëriñ seen premier rôle mooy politique xamoo loolu xam nga senegaal lii lii lii maam occasion la sax ci man ngir ñu tëggaat gis-gis gi sénégalais am ci sëriñ. sénégalais dañ jàpp ni sëriñ mooy toog ci sijaada bi lépp lu jege àddina intéressé wu la ñun looloo ñu teg jafe-jafe yi ñuy dund ndax suñu sëriñ si bi ñu fi jëlee tubaab ñi dañoo bàyyi tubaab yu ñuul yi gën a yées tubaab yu xëy si waaye buñ jëloon réew mi tiiku ni yonent def bi mu jotee ci màkk ñun dañuy ne ci jàmm xamal li sax mu tax mu moom Arabie Saoudite yonent jotee ci màkk da ko gestionné ñëwul lañ na leen màkka ngi ne àdduna la wan naa leen ginnaaw da ko téye teg état parce que foo nga xam ne l'islam projet de société la l'islam du rek jàng saar jàng hadis sëriñ si ñëwuñ fi rek pour woy yonent bi wo tagg suñu borom magnifier ay mayu yàlla ci yonent bi déedéet dañoo am projet de société l'islam li tax yéefaru Màkke amoon problème ak yonent bi mais du wax saar kese de. d'accord mais mais mais nag quand même une de la population ñoom euh, perception boobu la ñu parce que lii ñoom dañ ko war a tëggaat ñaanal askan bi réew mi nekk ci jàmm moo tax ma dañ ko war a tëggaat lii tubaab yi ñuul yee ko def ci xelu sénégalais mooy langue langue politique bi dafa salté sëriñ si waruñ ko jege nan leen ko bàyyi ñoom ñu nekk ci seen mafia googu di séddoo alalu réew mi di ñu lii rek a tax ñu nekk ci jafe-jafe. mais bu ñu gisee politique léegi ni mu mel ci réew mi Iran Iran importe Iran. pour éviter que ah, mbiri di di di di dégénéré euh, Iran. Hmm. ay boroomi kaalaa ko yor depuis 1975. mu ngi sur cinquante ans d' embargo fépp fu grande puissance yi toll ci développement toll na fa Iran amul kenn ku alalu askan bi di ko gasa gasa rek xamul tax ay boroomi kaala yu ragal yàlla gën yàlla. ngir lu juste mais ñoo ko di ko gestionné da nga foog ne Sénégal fii bu ko sëriñ si yoroon ñu dañuy dund jafe-jafe gi nekk nii si fou sëriñ si amuñu ñoom amuñu ñoom seen responsabilité mayu leen ñu génn ci langue politique bi dañ cee war a ne ba sàmba di ci demba te tàmbaliwul tey ci ci Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum la tàmbalee